lii nag ku ne xam na ni gëj naa xew ñu ngi nuyu réew mi yëpp gëj nañu maa gis ci réseaux sociaux yi gëj naa wax occasion lay doon ñu saisir ko ci xew-xew bi am ci dëkk bi muy feebaru coronavirus bi di loo xamante ne yàlla sunu boroom moo ko dogal indi ko ci réew mi ñu ngi ñaan yàlla mu teggil ñu ko ni fi yeneen feebar amee woon yàlla na doon lu ñuy fàttaliku bi jaahi mu musawa ñi ngi jàppale président de la république tey kontaan ci moom ci taxawaayam ci corona bi ak équipe bi ko wër yëpp di rafetlu taxawaayu opposition wu Sénégal ndax gis nañ ne bi mbir mi amee booloo nañ bokk ndey bokk baay joxante loxo ngir daan feebar bi ñu ngi ñaan nag booloo googu ak joxante loxo bi yàlla bu mu yem bu feebar bi jeexee yàlla nay sunu àndandoo ilaa abad insha allahu rabbi yàlla def jàmm ci réew mi ni ma koy faral di ñaane keneen ku nu bëgg indil jàmm leneen lu dul jàmm yàlla na la yàlla jox loo jàpp ba fàtte li ñu fi dajale tey nag kàdduy leeral la ak sentiment de désolation xew-xew dafa am dal ci njabootu Alaaji Bassirou Diagne man mii di yëkkati kàddu ñu gën ma miin ci Mouhamed Bassirou Diagne defe naa drapeau laa ci kër Alaaji Bassirou Diagne wala boog ma ne ambassadeur laa ci kër Alaaji Bassirou Diagne ndax kaar fa tabarakallahu bi may am juróom-ñaari at laa gimmi gis góor gi di ànd ak moom ba ni koy dugalee ci biir suuf yàlla suturaal ñu tàqali ko ak moom fu ko nit gis gisuñu ñu ànd ak moom kon dafay jaadu lu dal ci njabootam rek ñu xam ne ci sunu kaw la dal am xew-xew boo xamante ne nag dafa dal ci njabootu Basirou Diagne gépp lay wax muy suñu frère Alaaji Diallo jaañ Basirou jaañ jur ko mu am xew-xew bu dal ci kawam xew-xew bi nag mun nañ ko ba ñu tuddee xew-xewu jàmm ndax ñun dañuy ay ndaw di góor di wut teraanga di gañe ay marché di liggéey di fexe nag suñu kéemtalaayu kàttan alaaji Basiru Jaañ mi nga xamante ne amuñu lu dul moom te fa tabaarakallahu lépp lu nu am tey moom lañ koy sante ñuy xar sunu suñu sànq tubéy fu nu toll ci di fexe turam bañ a fay am benn fondation boo xamante ne taxawal nañu ko muy fondation alaaji Basiru Jaañ ñu am benn waay boo xamante ne suñu xarit la ñëw fi seet suñu nañu nag dama bëgg jàpp ci fondation bi am naa sama ay partenaires yoo xamante ne pare nañu financé ñu jusqu'à hauteur de trois cent millions bi loolu amee te trois cent millions de trois millions de trois cent mille ñu ne nañ càmbar mbir mi loo dafay jaar ci yoon ñu laaj ko ay kayitam mu nañu ñu nañu génne suñu kayitu fondation ñu xamal ko carrément ne ko ñun suñu fondation amul kayit ndax boobu ñu ngi ragal sax ku ñu lalal ndëgg sërëx di fegu ak di peeg suñu bopp rek fu ñu toll boole kook suñu benn xarit boo xamante ne du Mbacke lañ koy wax ñu koy jéggalu bu baax a baax a baax a baax a baax delluwaat di ko jëggalu di jéggalu njabootu sëñ Touba gépp ndax defe naa doomi Serigne Mourtala Mbacke ku ko laal kër Serigne Touba nga laal muy suñu xarit nag ñu yàgg seq ay business muy nit ku baax di dox ci lu jub di wax si lu jub ñu boole ko ak waa bi mu toogee déglu ko nañu mën kii li mu wax dalul sama xel ñu ne koon nañu bàyyi waa ji mu dem ñu ne ko sëriñ bi wax dëgg yàlla ñun lii dalul suñu xel nañ ñaanalante ci jàmm te bu ñu amee beneen business ñu ànd dox ko li may wax nag c'était au mois de décembre ma jóge fii man dem jaaloo génn fa dem Abdou Mbacke dem suñu beneen frère sax ca woon Lamine Wañ dem à notre très grande surprise bëkk néeg bi ab Abdou àndaloon ndekete yëdd na suñu waxtaan dégg nañu dégg trois 300 millions yu war a ñëw xamul lu xew lan la mu tëb moom itamit di ci def ay pexe ba am ci bunt bu mu ca xam dégg naa di wër nag numéro jaalo te jàppatul turam waaye li mu ci jàpp mooy grand sëriñ doomu Basiru jaañ la zone bee la dëkk di laajte ba jox ko numéro Pape Diagne Pape Diagne di suñu mag di sunu taawu baay yàlla dogal euh, mu woo Pape Diagne bi mu ko woowee jotu ko mu envoyé ko message par WhatsApp ne ko maa lay woo boobu ba tey jotuma la defe naa daal yëfi buur yi jëlal sa téléphone moo gën ñu wax ndax am naa yoon ci 300 millions yi 300 millions yi ñu doon waxtaanee am naa ci yoon am naa partenaire boo xamante ne mën nañ ci liggéey Pape jaañ ne ko da juum du man question laay posé foofu nit kuy wax ak yow ci téléphone juum nga xam ne kii muy waxal muy wax ak yow dafa juum nga ne ko juum nga defe naa wax ji jeex na Pape Diagne ne ko da nga juum mu ne ko maa ñëwoon seen kër zone B mu ne ko sama rakk jaaloo fa ne mu ne ko jaalo moomu la moom laa àndoon ak sëñ Abdou ñëw këram Pape Diagne ne ko danga juum du man fekk boobu déglu na ba xam ne trois cent millions yi waroon jaar ci fondation Bassirou Diagne la ba xam information yi ci war yëpp nit nag ku nekk yaa xam na ngay tojee sa bopp jinax moom ni mu jàpp ne noonu la war a tojee bopp jinaxam li mu jàpp ci ay rakk yoo xamante ne seen bàyyi dafa dee wàccee leen mooy jóg dem brigade de recherche porter plainte ndax xam na ne lu ñuy tudd fondation bi bu buñ ca wootee dinañ woo Diallo te li olof naan ku lay wut juutu la day seet fa mu gën a jege mu jaare fa mu porter plainte waa ji ne nañu topp dossier bi ñu convoqué jaalo ñu jóg wuyu ji brigade de recherche bu mag ma ah wax dëgg yàlla mu xaw ñoo yéem nag ñu jóg dem ndax tooñuñu kenn bi Diallo ñëwee 15 heures ba 10 heures 23 heures 22 heures ci guddi mi ngi fa ñu na ko presque 7 heures de temps moom bi ñu ko laajee mu wax ne waa ji xaw ko ñëw na sama kër waaye sëriñ Abdoulah fa àndal la ma doon wax sëriñ Abdoulah ko doon waxal dañ na ko waa ji loolu la wax. bi sëriñ Abdou Mbacke ñëwee tamit lii ma leen expliqué na noonu la demee daf leen na waaj ji bi mu ñëwee li mu wax dalul suñu xel amuñu kayit yu ñu moom dañ koo bàyyi mu dem yi may. taxaw foofu nag di laaj ndax dama jàpp ne dañu nekk ci réewum waxtaan nekk ci réewum jalo bokk ci askan wu mag wu ñuy wax askanu lébu di aw askan wu daan tinu di askan woo xamante ne nii ku mës a ku mës a ku mës a def njombe ci ci dëkk bi sax ba ñëw ci sunuy maam boo làqatu soo raw nga ñu tuddee ko rawukaay bi fii rawukaay bi la ko mag ñu tuddee woon moom mi nga xamante ne mi ngi tuddoo grand sëriñ yóbbuñu foofu ñu wuy ji ko bi ñu ñëwee gisuñu ko commandant ña brigade de bu feder commandant ña entendre Diallo mu tontu li mu xam ñu ne ko léegi da ngay toog xaar Pape Diagne foofu nag man li may laaj àdduna mooy ndax justice bi dafa am ko ko moom Pape Diagne toog ñu toog di ko xaar ba mu yegg si ñuy ay rakkam salaamaaleykum la wax romb fëgg commandant bi dugg buróom génn fa ginnaaw ba nag rakku bëkk néeg bëkk néegu sëriñ sëriñ sëriñ Abdou boobu rakku honorable député saa Dagga la bu Touba moom Pape Diagne mu taxaw ak Sa Dagga xamal ko ne ko waaw man daal li ma doon def mooy damay setal sama bopp waxi blanchiment d'argent la ñu tudd ma ci kon damay setal sama bopp jaalo bi mu seqal coow li yaayam Fatou Diagne mu ngi fi di dund Pape Diagne dafay faral di wax ni sama tante Fatou Diagne bi ko sama papa jëlee suñuy nopp nee na moom moo sol costume baal réception ba ko seqal loolu defe naa bu la doomam tooñee mbaa nga am seq doomam war ngaa mën a ñëw ba ci kooku d'autant plus que xuloowu leen soo ko woowee mu jël la boo ñëwee këram gis ko nga woo ko ne ko lii may dégg lu mu doon ku war a tooñ ku war a atte defe naa waroo tooñ lii nag boo gisee ñu def ko ñetti yëfa ko waral ndax dañuy ay businessman di ay homme d'affaires man sama kaalaay wax ak jaalo ndax dañuy ànd ci business maak moom musuñoo ñoo yend fu ñu jant soowewul mosu ñoo casier judiciaire vide lañu am suñu ñoo defeere parquet jaayuñu suufu jàmbur trafiqué wuñu visa doxuñu médiation bu ñuy ut commission ñu ngi toog di wut ay marché comme tout bon sénégalais di góor góorlu di liggéey di di di di di di daan suñu doole di contribuer ci développement wu réew mi Alaaji Basiru Jaañ nag liggéey ci réew mi loo xamante ne defe naa bu dëddoo wàcc fi njabootam war nañoo jéem a góorlu dëggal suñu bopp ci def lu baax li mu fi li mu fi daan def dox ci lu baax li mu daan dox di dimbilee te ci loolu la ñu ne ñi ngi ci ñi ngi ci morgo yi ñi ngi góor di sang néew yi ñi ngi ci weeru koor gi ñi ngi ci tabaski bi ñi ngi ci gàmmu gi ñi ngi ci màggal ñi ngi ci tamxarit taay la yéwén ba Alaaji Basiru ku ko xam xam ne bienfaiteur de l'islam lañ ko tuddee woon ci loolu la daan dox may laaj nag ba fii fan lañ tooñ Pape Diagne yàqaluñu ko bi muy laaj Ndakaaru ñu ne ay rakkam yëpp dañoo àndandoo topp ci ginnaawam biñ koy jox suñu ay yére papa mu koy sol kenn miiraasagul sam papa dañoo xëy oto Mercedes bu sam papa gaare woon mu xëy taal ko ne président Macky Sall jox na ko ko amul benn doomu Bassirou Diagne mu musa taxaw ci kanamam ne ko wan ñu preuve bu wane ne président jox na la oto bi waa kii yéene nañu ko fii may wax ak yow suñu miiraasu baay lépp ci loxoom lañu ko teg sunu alalu baay yoo xamante ne papa rawaan dafa ne lii mën a guñ koo miraas dañ koy teg jaay ko sax mi ngi ci ay loxo mu di ko jëfandikoo caq bi muy takk ay manto yu muy sol ay mbir yu muy suñuy jaaseeg suñuy mbir ay la yoween ñuy muñ loolu xam ne dafa song combat boo xamante ne c'est pour rehausser la collectivité lébu suñu collectivité jaroon ñu ko ñu ànd ak moom demuñu ci benn ministre mbaa benn kilifa ne Pape Diagne ñu fa yabal doxee wuñu turam usurpé wuñu xam nga man tey jii niroo naa ak moom baat lool mënoon naa jël sama téléphone woo benn ministre ne salaamaaleykum man la grand Serigne Pape Diagne dama am problème mu xaalis virement damaa bëggoon nga abal ma million maa ngi yabal sama rakk Mohamed mu jëw jël si ko ndax yooyu amoon na fi. man nag dama wax ne picc bu lakk si taat day bëgg morom jaalo bi mbir mi amee dama ko ne santal yàlla ndax am na loo xamante ne faat na si ñun dootuñu ko dégg mooy ils ont escroqué leur kooku moom ñun dootuñu ko dégg xëj na dañ naan escroqué nañ xaalisam escroqué nañ nangam. waaye ils ont escroqué notre père béjjinu jën la ci ci bopp Papa Diagne la yor daf maa bett nag damay woote conférence de presse lii declaration la boo xamante ne pour dalal xelu suñuy mbokk ndax ci suba ba tey ku nekk a ngi woote ci suba ba tey suñu xaritu papa yëpp a ngi woote ci suba ba tey kër gi désemplirul ku nekk a ngi fii ñëw di métti lu xew day jaadu ñu génn wax ak nit ñi woyofalal leen ko ci seen ci seen i bët ñi ngeeg benn ñi ngeeg ay documents yoo xamante ne dinañ ko génne mooy bi ñuy atte Pape Diagne tribunal de Dakar flagrant délit ñu condamné ko cinq ans de prison mu mujjee tëdd quatre ans yi ñu baal ko benn année bi te boobu la ko waraloon mooy escroquerie boobu danaan woo ministre ci réew mi ñoom ministre Assane Diagne ak ñi ci des naan sam man la Basirou maa ngi lay yebal sama doom ju tudd Pape Diagne ñun foofu jaaruñu fa ak sunu baay ñun fi ñu jaar ak sunu baay mooy président Abdoulaye du may ma 20 million ma ko deux heures ne ko 20 yaa ngi li may wax sama tante sedd la si. ñun fi ñu jaar sunu baay mooy ànd ak moom ci buy metti ci buy wéet ci buy neex ñu di ko taxaw wutuñu ci moom dara usurpé wuñ ko la ma sam papa waxoon nag tey moo yegg si dama Pape Diagne la ma daan def bàyyiwu ko daf ko gën a jekku fi mu ne nag dafa wane ne gën naa jekku ak mbon waaye waroon na koo jëmale fépp ba mu des ñun ñii ndax gënuñu judd ëpp ñu taxawaay ci réew mi xale bu ndaw laa juddoo guma maay caatu Basiru Jaay na natt ay atam natt sama bopp ak yi ma am ci réew mi li ma fi tekki bi ma ko fi tekkee mi ngi dunguru Ablaye Matar ak Lamine Diack di leen politigal man booy booy lim responsable politique yi nekk Médina soo nee benn ñaar ñetteel ci man lay doon mbaa nga ñeenteel ma mbaa nga boole ma ci benn yi mbaa nga boole ma ci ñaar ba kon sant naa yàlla sama yaay sëyul sama papa sëy bu rafet ma ànd ak sama papa ànd bu rafet ba làq ngërëmam mu ñaanal ma kon nag dafay jaadu bu fekkee ne da ngaa ci réew defoo fa loo warul a def am comportement bi nga war a am bu la fekkee ci sa ruq bëgg la faa génne nag nga taxaw damaa bëgg je prends en témoin le peuple Sénégal je prends en témoin les xalifs généraux de ce pays ndax xalif général bu fi nekk tey sunu baay nga ñu ngi nuyu mun Mountakha Mbacké sunu baay boobu di ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu baay Seydina Alaaji Abdoulaye caw di ko jox wàccuwaayam di nuyu sunu baay Serigne Babacar Sy Mansour di ko jox wàccuwaayam ak sunu baay Cheikh Tidiane Niass sunu baay Cheikh Tidiane Seck ca ca ca ca ca lew na ñeseen di nuyu kilifa diine yëpp di leen xamal ne ñun njabootu Basiru ñoo boole woon sunu cër ak cëru Ndakaaru dégg ko Papa Diagne muy dox ci sunu baat di ci wax waaye loolu jeex na tey yabaluñu ko gàmmu yabaluñu ko màggal sunu yoon newatul ci moom yoon wu mu jaar moo xam na ko doxal ñun yoon wi ñu war a ne te suñu bàyyi wàcc ci du ndakaaru li Basiru nekkoon moo gën a noobul ndakaaru ku ma ci mere yaa xam Basiru Diagne a rehaussé le grand fi mu yóbbu Serigne ndakaaru dafa am fu mu ko fekk muy benn mu am fu mu ko yóbbu ñii fi ne di coow teg benn pal bu légitime amul ndakaaru nag nañ waxante dëgg góor naaru géyee fi am pal bu ah. fii pal bu légitime bu nu fal cosaan làkkoon fàkkoon ñàkkoon amu fi Serigne ndakaaru bu boof amu fi bu nu fooye bokk ci coow li xam ne xew ko gën man nag mag ñeema tàggat mës naa ko moom Pape Diagne ba ñu àndee dem seeti Macky Sall président jox lébu gi 20 millions ñu génne 10 millions yi ne ñoom dañ koy séddoo li ci des dañ koy denc lébu yu ñëw yëkkati 50 mille di ko may ma ne ko bu dee carte de membre la ngeen wax ma ci lébu gi pal yi fi ne maa leen mag ñii ñëpp seen pal niñ ko labajee sama kanam la pal bu ma mag amatul ci ndakaaru wax jooju da leen di déranger waaye nag nañ ko dégg moo am maa suul góor gi Abdou Karim Gueye maa ngi taxaw maam Ibrahima Sam man daan déeyoon seede yaa ngi fi jaa mbay binta payi nañu dama ne bokk si coow li xam li xew ko gën mag ñi ngankoon ndakaaru yàlla may na ma man ma fekkee leen te ñu ma génn bu ñuy waxtaan kon nag kenn duma ma ci Dakar du ma ko nangu Pape Diagne nag li mu def dafa ko jaalo njabootu Bassirou Diagne la ko def lii mooy na ngeen toog noppi miraas mi lu ma si dogal na ngeen noppi su may dogal ci ndakaaru na ngeen noppi ku ma contre dinaa ut pexe mu ma la bu ma la xeexee ma yëgal président Macky Sall ne ko sunu mag la su ngeen baree na ngeen jël image yii président Macky Sall bi ko ab laay Wade songee fii ci réew mi ken ñëwul wax man ak sam papa ñoo daan ànd guddi di dem këram sam papa naan kaar bul fi ñëwati del toog sa kër di ma xaar man li may wax maa ko mën a seede Alioune Badara Cissé Mame Matar Gueye je précise bien des noms bokkuma si ñuy fen naan président maa ne woon sam papa lii maa ne sam papa lee déedéet man li may wax dama ko fekkee bu sam daan dem kër Macky Sall man mii lay àndal àndul ak benn doom mu ànd ak moom taxawu ko yabal ko ci Serigne Baara xeex la ko ba yàlla dogal li mu dogal tey kon je prends le président en témoin xamal ko ni ko fii ay rakkama fi ne intermédiaire bi rey nañu ñun on a absolument reçu du président de la république di ko xamal ne ko nag ñun duñu ay trafiqueuru visa ñun immobilier wu ndakaaru suuf si amuñu ci contentieux ak kenn au contraire sunu mbokk mu ci am problème boo ñëwee seet su ñu wutal l'avocat yoof laa dëkk la xew waa melu xaas xam naa ko jàmmi jàmmilaay ji séddoo ba na mu demee xam naa ko mënuñoo nangu ay Mamour Diallo di développé gars yi nag wax dëgg yàlla dóor suufu ndakaaru gii séddoo ko di dawali 4-4 ba noppi jël alal jooju bëgguñu ko nootee duñu ko nangu jot na nag ñu taxaw lii ñu ngi ciy woo njabootu Bassirou jaan gépp danga xamal ne lii Papa Diagne def defuma ko defu ko Diallo defu ko keneen ñun ñëpp la ko def mooy yéen waa kër Bassirou laa jël yóbbu police loolu nag su amee te daanul lu daanul am su amee dafay laaj ñu soppi doxalin man de sama baat ci kaw maa ko daan tijjil buntu maa ko daan téyeel dal huit heures laay xëy këram bu ngoonee vingt deux heures deux heures du matin deux heures du matin plutôt laay génn këram maag Isaaxa Diagne Pape Diagne musuma may cent mille francs yu bokk buum fu mu amee na ko wax Samba la kon ndax Samba Alaar mënut a weesu may dégg ñu naan mi ngi may ay millions ci mbedd mi te boo ñëwee ci sa biir kër say rakk mosoo yëkkati 100000 bi bokk bu may leen xaaruñu ko ci moom nag ndax ku la yee la dimbali papa Dia ñëpp may yéene man Serigne Dakar oo ko booleeg yéene ñun 505 mënu yóbbu ñu jàngi Basiru teraanga rek lañ ko amel moo tax ku ko laal ñu jàkkaarloog yow ak koo munti doon bi may dawal 607 Pape Dia ñu ngi dawal chaque jour bu ministère de de de de de nu mu tudd de l' économie maritime ji bokk jox ko ko ñun suñu bàpp utul nu woon tiital moo nu yaroon li nu mën a wax bari na nag dafa am lu ñu doon sàmm ngir mag ñi ngir yax ya tëdd àllaaxira waaye am na lu ku ko bañu ñun duñu ko bañ ñu ngi jéggalu ñëpp ndax contexte bi ni mu demee la fi réew mi toll laajul lii waaye am na foo xamante ne ku la fa jëmee nag war ngaa wax ba ñëpp dégg la ba bu ëllëgee lu xew ñu xam ne nii la demee ñu nga xamal Serigne Mountakha Mbacké ne ko màggal bu jotetee ñi ngi xaar suñu carte ñun kër Bassirou Diagne ndax bokkuñu ak Ndakaaru sunu yoon newu ci ndakaaru du nu ay sëriñ ndakaaru mbubb yi lii ñu yor su su bàyyi sunu bàyyi ko moom wàccee ñu ko waaye ku doon sa yére bàyyi sol ko na leer grand mbubb grand mbubb vingt cinq vingt six centimètres largeur hauteur awo Basiru jaañu ko moom sëñ ndakaaru moomu ko nañ xool ay photo Baye Mor Marème xool photo maam Ibrahima Diop sëñ ndakaaru yu baax yi laa wax nag j'ai bien précisé dama ne nañ xool photo góor gi Momar Marème Diop xool góor gi maam Ibrahima Diop mu mag ma nag laa wax mu cëriñ ma daan dawal fas ba ma fexe woon ba tubaab ya kenn yabu ko sëriñ Ndakaaru perte na valeur am boo demee ci bureau yi fekk leen fa ñuy taxawaalu boo demee boo demee ci ci ci bi dégg leen fa lu ne ay gone di leen ko wax amatuñu benn crédibilité loolu dama ne ñoom nañu ko doxal boobu Ndakaaru man soxlawu ma man Ndakaaru bi ma soxla mooy def lu baax wax lu baax ndax loolu lañu suñuy maam wàccee woon ñanga ca ku ñu ca a jëlee yi tamit nag ku ñu ci bëgg a jëlee incha allahu rabbi di ñu fekk ci sunu ay valeur fekk ñu ci sunu taxawaay beneen point bi may leerale te di ko tëjee xulowuñu kenn xeexuñu kenn Pape Diagne bërki démb dëj bi ñu mujjee tase dama ko wax lu baax lu ñu seq moom te mooy ne yaay taawu Basiru ci ku ko nangoo ku ko bañ ay layween nangul nañ la ko kon defe naa bu lii amee mu doxalee nii mu doxee ñu nit nii ñu doxee rek la ñuy mën a doxee ñu ngi ñaan xalifa yi ci réew mi di leen xamal këru diine yi ne leen waa kër Basirou Diagne ñi ngi fi Basirou liggéey na ci diine loo xamante ne ku woote ci diine am na fa cër nga di ci woo Pape Diagne Pape Diagne ndakaaru la fay teewal kër Basirou Diagne taxaw nañ ndax ñi ngi dox ñi ngi wax ñi ngi jëf ma am benn affaire bu ma leeral nag dafa am benn fondation boo xam dafa am benn waay boo xamante ne jaaloo daf ma mës a woo fii na ma Pape jaañ daf ma yebal ñaari nit ñëw nañ fii gars yi daal nee nañ ci benn aali lañ jëlee xaalis dañ koo bëgg dugal ci fondation bi ma ne déedéet comme ni ñu bañee bi waa ji waxee ma ne déedéet nañ indi këyitu leer jaaloo gantal gars yi dañoo yegg ne Pape Diagne gàntal nañ mu woo jaaloo saaga na ko wa saaga ko ndey ne ko noon ngaa nangu bu xaalis bi ñëwee fu mu cangee ma jëlee ko fa nous ne sommes pas des trafiqueurs déedéet ñun jaayuñu visa trafiqué wunu lu leew la ñuy wët ñu ngi koy woo ci lu leew loolu ndax mag ñi mu donn loolu la ñu donn Basirou Diagne dund na ba dee alalu Ndakaaru musu koo yor je prends en témoin maître Doudou ba mu demee gaañu procès ba gagné leen dafa jël suuf si teg ci loxoom moo tax keroog ba ma ko ba ma ko góor naaru géey di laaj ma ne ko dem leen nga laaj ko Doudou Ndoye ndax xam ngeen ne moom la ko Bassirou jox donc dama koy fàttali ñi mu doon mooy mag ñu baax ñoo ñu daan def lu baax di ko wax te di ko ci woo nit ku dul juum amul juum na li ñu koy woo mooy mu génn wax ak àdduna ne damaa juum nañu ma baal ndax li mu doon lëñbët bu ko gisoon tey ñu ngi ci kaso ba waaye heureusement ba ci lu jub la ñuy dox ci la ñu yar ci la ñu tàggat moom la ñu toqantal ñun Basiru yar lu ñu Basiru Jaañ moom nu yar yar lu waanuñu Mariam Jóob Mataar yaayam yaruñu tanta yaruñu jabaru papa yaruñu ñun Basiru moo nu yar su tëddee fii tëral ñu tëdd muy xam ci lu ñuy xëy di xam ci lu nuy gont loolu nag doy na sant yàlla ñi ngi sant képp koo xamante ne mbir mi metti na la ba nga yëkkati sa téléphone woote ñu ngi jéggalu suñu yaay fa jaañ bu baax a baax ndax lii metti na ko ndax bu sañoon lu ñaaw du am ci kër gi ci ginnaaw Basiru démb ba tey mi ngi defar di wax di wut lu ñu jàpp lu ñu jàmmale di wut lu fay coow li waaye nag ku la yéene police mbaa mu la dee sa noon la bu wax ji ëppee tolluwaayu nit la lii metti nañu tolluwaayu nit la su tegoo ci yoon ñu xam ne yàllaa ñu yàllaa ñu tënkal suñu kàddu ba la lanu bëggoon a wax ñu yàmmale ko fa kon ñi ngi jéggalu ñëpp point de presse bi fi réew mi toll conférence de presse bi ñu naroon tenir fi fi réew mi tollu ak coronavirus bi ak coono yi moo tax ñu fomm ko ma def déclaration bii ma def waaye ñu ngi ñaan yàlla yàlla delloo suñu jàmm ci réew mi delloo ñu jàmm ci njaboot yi delloo ñu jàmm ci kër ba Bassirou Diagne ji ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp sunu mu Moustapha Diagne Yves nag man damaa bëgg mu leer bu ko kenn laaj fu mu ne déedéet ndax am nañ kilifa mu Moustapha Diagne Yves mooy suñu kilifa waaye nit ku nekk mooy li ma wax rek yaa xool lu la neex nga def ko il a choisi de nous dire que ne man bi Bassirou di dund ay mbiram dugguma ci bi mu deewee duma ci dugg am na ñu ne nag fuite de responsabilité la ma ne leen déedéet nit ku ne yaa moom sa bopp moom sañ na loolu moo tax duggaluñ ko ci coow li ñu ngi koy jëggalu ci ci ci lii di jëggalu njaboot gi yëpp bugguñu woon mu demee nii waaye ku xool démb ñun taxawaay bi ñu amoon ci Pape Diagne guddil ko bëccëgal ko na xoolaat tey ndax taxawaay bii mu am ci ñun moom la war a am ci ñun mooy du ñu yóbbu police salaamaaleykum wa rahmatullah